waaw fii moom chaque année moom nii lay demee rek événement bu mënti am itam maag sama jëwriñ ji ak mbokk yi ñuy àndal ñooy ànd liggéey bi waaw joxe ndox daal lu set ay boisson loolu daal mooy suñu liggéey fii moom lu ñu jaam yàlla jox daal ñu jëlawaat ko ci jaam rek waaw loolu daal mooy suñu liggéey waaw dina jafee xayma dina jafee xayma ndax xéewal gi ni muy ñëwee dafay naqare nat lool lool lool lool day bari bari carrément day bari trop dina bari lool ba day naqare xayma ni ni muy ñëwee itam noonu nga koy joxe parce que léeg-léeg da ngay 1000 paquets 1000 paquets yi boo ko boo ko recevoir ay ay ay ay quelques heures da nga koy joxe ba mu jeex parce que jamonoy tàngaay lañ nekk loolu bu demee ba jeex tak ba dara nekkatu fi day ñëwaat ba feesaat ba mel ni dara mosu fee jóg waaw kër Sëñ Tuubaa moom mooy doxee noonu waaw loolu daal loolu daal ci la ñu nekk daal incha allah. am na ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci dal yi ñu nekk ci kër mbakk yi ñu nekk ci hôtel yi ñooñu dañoo ak mbake mbake yeeg kilifa yi ñooñu dañu am liste spéciale boo xamante ne nii dafa am oto bu yore loolu. oto boobu bu ñëwee bu wàccee liste bi rek bu ko joxee sama jëwrin mi sama jëwrin mooy jël liste boobu ah kiyee ko nu ñu koy waxati ñu séddale ko ni mu ni mu ni mu ni ko war a séddalee daal ba dara du ci la baj incha allah sama jëwrin mi itam suñu jëwrin mooy Seyer Ndiaye Seyer Ndiaye koy jox ndigal bu ko joxee ndigal rek ñu wéyal ndigal li dèjà nii nii nu fi nekk nii sax ci ndigalam lañ nekk mais moom dafa nekk ci beneen liggéey ci ginnaaw waaw ndax dafa am camion bu fi ñëw léegi te li mu yor ci ndox ko war a wàccee rek fépp fees na ak koy mu koy xëccal courant pour camion bu mën a xaar loolu moo tax sax fekk leen ko fi nekkoon moom ngeen fiy fekk léeg-léeg xam nga murit dañoo xër ay dali carax sax indi nañ ko fi waaw mbiskit tàndarma lépp loo xalaat ne nit dina ko xéewloo murit yi dañ koy indi fii waaw saako ceeb yaa ngi firndale ci am na ñoo xam ne toog seeni ceeb ba mu ñor sax ñu indi murit moom lépp lu nit di soxla rek dañu koy indi waaw lépp loo xalaat ne duñ ko indi fii daal murit dañ ko fi indi